original ay waay pur jus de fruits original moo leen di wéttali ci seen bépp xew-xew. ku nekk ci réew mi xam na débiteri le mbote 1 chez Papis bu Serigne Saliou numéro téléphone am di 77 036 50 88 wala fixe ba di 33 822 13 ndaxte nag débiteri la mbote 1 Médina rue 11 angle 8 ñëpp a ko bëgg toppandoo ñi nekk ci biir Facebook bi naan ñoom ñooy le mbote te moom moo créé markam gën fi safle dibi loolu dafa leer débiteri le mbote 1 méchoui sur commande grillade sur papier pigeon moo ci mën poulet moo ci ci mën dibi bu ñu saaf yëfam la méchoui sur commande wala possibilité vente détail débitëri la mbote un papis mu saaliwu mi ngi nekk fii ci Médina rue 11 angle 8 dafa am ñoo xam ne dañ koy piraté naan ñoom la nekk ci Facebook bi di détourner clients yi gars yi wàcc leen la mbote bàyyi leen papis bàyyi leen papis borom méchoui borom dibi saaf numéro bi rek la am 77 036 50 88 wala 33 822 13 88 fii la safe beauté, on est ensemble. ngeen jëf mbokk yi bàyyi xel seen chaîne bi di Baol TV Naar Fall mu leen di nuyu di amaan mbégte ak contentement di jàkkaarloo ak yéen mbokk yi ñuy nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di nuyu kilifa diine kilifa aada yi di ñaanal ñu faatu yàlla yërëm leen xaaree aljana ñu tawat yàlla yàlla fëgg seen bopp ñu ci ab féeti ginnaaw yàlla neen suñu borom génnee bañ dellusiwaat suñu biir mbokk ñu leen koy defal comme ni leen koy defalee saa su ne nee na leen fépp fu actualité làmb nekk dinañ fa dugg waxtaanee ko waaye mbokk yi ku ne xam na ni euh, tey la 18 mai bis bi nga xamante ni mbokk yi mooy face to face bu war a dox ci diggante Gris Bordeaux ak ki nga xamante ni mooy Ama Balde guy gi war faa jàkkaarloo ki nga xamante ni mbokk yi mooy Ada Fass Zos war faa jàkkaarloo nga xamante ni mooy Liss Ndiago mbokk yi moo waral ñu déplacé wu tey ñëw fii ci Pikine fas yéene leen toppal li nga xamante ni mooy euh, actualité bi jëlee leen départu Ama Baldé ñun moom ba 2STV yi waaye mbokk yi tey dama cee ànd ak sama xarit sama jigéen Binat borom Rio di leen wax ni rek Bawal TV sama jigéen ñëwal di leen wax ni am ngeen gan muy Binat di leen wax ngeen bàyyi ko xel moom ak Naar Fall ñoo fas yéene ànd ci Bawal TV ànd ak yéen liggéey liggéey bu doy a waar. incha allah du ma la fi dul bàyyi bi nag mu nuyonteeg internet yi Baol TV ñu wéyal liggéey bi sama jigéen nuyu naa la. <gasps> maa ngi lay fay bu baax a baax sama mag ju baax ji di nuyu ami fidèle téléspectateur et internaute de Bawal TV di mhm. leen wax ne nag heure bu baax bi jotati na. waaw ndax instant yi ñu ngi diwaanu Pikine seet fi mhm. ndaanaan ndaanaan kullu fadili. Mhm. ndaanaan boo xam ne nee naa la tàkkusaan bu ne def na ko ci làmb muy Ama Baldé. Ama tey nag mu war a def euh, face to face. moom ak kooku nga xam ne moo di Gris Bordeaux. tey daal nee naa leen dara du leen fi ump. dara du leen uh-huh. ma ànd koog sama jigéen comme ni ma leen ko waxee di leen wax ñaanal xale la jigéen la di dóor waar bëgg ko lool di wax rek képp koo xamante ni soppay Naar Fall nga nga jàppal ma sama jigéen bi ñeneen leen ñu ne génn ak Bawal TV du yomb kon bi nag duñ def lu dox rek xool gars yi waxtaan ak ñoom noonu lañ koy defee daal di dugg ci gars yi waxtaan ak ñoom naka la ñuy waajee li nga xam ne mhm. moo di face to face bi ak ni ñuy gungee seen champion mhm. Mhm. aja Aliou ñu dem Malaw Seras nuy naa la ñu ngi lay ziar soxna si ah, leer <laughs> tey nag euh, ngeen am face to face ak ki nga xam ne moo di Gris doo moo bëggoon xam naka ngeen koy waaj. waaw ñu ngi sant yàlla jur si yoon bi di sant suñu ñaari waajur waaw di ñaanal suñu papa ak suñu yaay fi ñu jógee nii fi ñu jëm yàlla ko gënal yàlla na yàlla xaraa jën ak bépp baar daa bu ñu fa di ñaan ñekk si hôpital yi ñu yàlla génne leen fi ñu jógee ba ñu mun nekkaa seen activité ak ñu nekk si kaso bi ñëpp di ñaa ñëpp jàmm di ñaan ñëpp tawféex waaw di waa yàlla ñu waa yàlla retour bees sax waaw bu yàlla naka naka ngeen koy jàngatee parce que tey mbër bu mag ngeen di ngeen ngeen war a jàkkaar lool mu doon koo xam ne ndaanaan la tàkkusaan bu ne def na ko ci làmb moom Gris Bordeaux waaw ñun làmb moom amatul lu ñu si jàngal pare nañ si pour le tout le tout le moom le yaakaar naa toll nañ si boo xam ne amatul lu ñu si jàngal ama beneen beneen beneen passe bu waat bu bees sax waaw waaw boo xam carrière bu bees sax waaw lu mu defoon lépp da koo teg na moo ngi si beneen voie waaw. mais mu mel ni euh, Ama Balde euh, depuis ba mu jugee France ba léegi est-ce que Malo gis nag gisante ngeen yéen ñaar yaa ak Ama. ñooy France ñooy yeelu. sëñ Fallou yàlla na yàlla jaamu rek dafa cat. ba bis ba. waaw mais tey ngeen bu mag la bokk. Mhm. waaw écurie mhm. Fass bu mag la yàgg nañoo bëreeg moom. Mhm. waaw bu ñu bëreeg Balla Diouf lañ nekk fa la bu ñu bëreeg euh, Tapha Gueye de fa la nekk Fass garaawul yooyu du dara si làmb yàlla na yàlla fa jaamu rek. tey lan lañ mën a xaar ci wax moo la fa indi. nga wax rek neexal làmb ji taal làmb ji. lu bala 31 rek yàlla defal ñu dem lu sedd guy ñu wër yiwaat leneen. loolu rek solo mais gis ñoom hmm. euh, mu metti woon lool am Bruxelles boo xamante dafa nekkoon seen diggante ñoom ñaar dañ tey euh, mën nañoo xaar Ama Baldé bu ñëw tàngal ci kaw Gris Bordeaux non yooyu moom wax moo leen fa indi xëy na dinañ wax waaw xëy na tey li jaay laamu ji rek moo leen fa yóbbu dinañ jaay laamu ji li ñu war a def yëpp def ko mais li des moom la 30 la rek yàlla na yàlla defal jaamu jaamu ba la 30 waaw ah, yàlla na yàlla jaamu rek waaw pare pare ñàkk pare moom ah bu subee ko si stade bi su bëree dañ xam ndax pare na wala pare yàlla na yàlla defal jaamu defal ko ñëpp defal ko moom ngir boro defal ñu ko mais ban ama lañ mën a boo xamante ni dafa yoral ay supporter am bor loolu est ce tam du diis ah bu bees beneen carrière xam nga xale yaa ngi nekk si doog nekk si dugg àdduna xëy na am na loo xam ne def nga ko ba toolu fii loolu la nga koy effacé waat mais nekkaat si beneen carrière bu bees sax te beneen carrière bu bees sax la nekkaat lu nekk si kanamam waaw li si nekk si kanam moom solo waaw da bu ñëwaat dañuy xam ne nekk si kanamam am na lu fu mu ko teg loolu la ko mosoon solo ah yooyu garaawul yàgg nañ si làmb. <laughs> mais gis ay images Gris yi mujjee gis ak Gris Bordeaux état bi nga xamante ne am na ko. non yooyu moom méttiwul garaaw Gris Bordeaux moom yàgg na si. Mm-hmm. entraînement moom kenn kenn du wax ndax xam na ko. Mm-hmm. professionnel lañ waa Fass waa Fass doon jaaxul leen ay wàllu entraînement ak yooyu. Mm-hmm. mais li si wër te wër mooy daal ah, ñun nañ pare rek ñun pare nañ fépp. waaw mooy fi <laughs> dara yàlla yàlla moo. Alaaji Mbaye nga génne lu bees. lu bees bi mu ama lii la la. kese mu ama. lii la la. loolu kese. Euh, lu bees euh, mooy baaxu bi. kontaan nañ ci yow leneen. ana ndox bi. ndox mi nga yoroon. ana ndox mi. si tawal. Hmm. man. da la kiran. waaw moytu oto bi kontaan naa dama ne lii la la la wax. waaw lu ci topp Ama lii lala la lu ci topp. riskin. riskin. ñambax ñam te waa waaw loolu neex eh dogo dogo kaay. Alaaji mbay doomu nday Ama Balde. siyaar naa la. waaw naa lépp jàmm. ngeen war a dem jàkkaarloog euh, Gris Bordeaux 2 lépp jàmm signature la rek. lépp ci làmb la nekk. lépp ci làmb la nekk. waaw lépp ci làmb la. Mhm. remplir contrat rek incha allah. yaakaar naa ñoom ñaar bi nekkul seen première face to face defoon nan ñaar avant mais seen première dañoo gisoon kersa seen. ama li deuxième bi ama ñëw di tàngal. tey lan lan mën a xaar. waaw ama mu ngi pare mu ngi pare comme mbër yëpp comprendre nga. waaw di ñaan yàlla suñu borom comme que làmb ji soreetul. bu ci eggee ak jàmm yàlla may ñu ndam incha allah. ah. mais bëri Gris Bordeaux. lan la lan la mais ñu bàkk bi neex na macha allah kontaan na. noppil noppal tuuti waaw. tey lan lañ mën a xaar seen diggante Gris Bordeaux. lu ñuy xaar bëre rek. bëre bëre waaw en. Ah, am xeex. lépp lay am bëre Gris Bordeaux. lépp lay am. mais ñun ki ñu yor xam nañ ko incha allah. dernière décision yàlla moo ko yor ñu ñaan yàlla suñu borom may ñu ndam. suturaal ñu may ñu ndam. mais jóge ci défaite war a defaat sorti demaat arène nationale loolu du xaw a diis. waaw làmb loolu moo ci am. làmb loolu moo ci am làmb tournée daw rek moo ci ñaaw. wane ginnaaw rek moo si ñaaw waaw da ngay uti rek yàlla mooy maye yàlla la ñuy ñaan waaw nit mënul wax li xew suba waaw da ngay rek xamal la wax li nga xamante ne ni yow jàpp nga ni loolu moom nga bëgg waaw ñun suñu mbër entraîné na na def na li mu war a def te bëgg na làmb te borom jom la surtout borom jom la waaw parce que man rek personnellement du ma ànd ak ku ñaax jom waaw te mu ngi ci moom waaw nit ku am mbañ la pare na ah ama pare na waaw pare na day wax ama pare na wax la. ah la manqué naan dina am ak am. non professionnel la ama parewul woon du bëri combat bi. Hmm. waaw noo gisee état physique ba mu ñibbisee. waaw mais bëggee waay yaa jarima waaw oto bi waay. rafet na ñii samay xarit lañ ñii samay waay uh-huh. jib lañ yor bees tax samay gaan lañ. war nga cee am de. incha allah. wadduha wadduha la yàlla wax wala Elisa eh, eh, eh, lii ñëw daal wala laaxirati xayru la min al uulaa. astafurlah yow <laughs> alaaj mbay bu ma dugal mais mais mais mais mais bëri Gris Bordeaux la lay def ci Ama waaw du dara Gris Bordeaux champion la mbëri nag champion yëpp mhm. waaw bëri bëri Gris Bordeaux def ci Ama mooy motiver ko mhm. mu xam ni moom fi mu nekkoon stade bi mu nekkoon mu ngi ci beneen stade mhm. nga di ñaan yàlla foofu muy dugg noonu yàlla suñu borom suturaal ko fa mu am fa ndam ndam lu sedd guy écurie Fass ku leen xam-xam ne bu mag la loolu tam du leen déstabiliser écrit face écrit bu mag la waaye yàlla moo yor ndam ñu ngi ñaan yàlla suñu borom mu may ñu ndam incha allah. macha allah noppi. am na solo kii kenn mënut a waxtaan ak sama xarit la nañ dem. magal la baaxul. tànk yi baaxul du taxaw. tànk yi baaxul. da da ngay cap. ah yow li ngay wax wóor na la. baax mag la xale bi ma duma ko incha allah na waaw. Gris Bordeaux jaar na fi ay magam jaar nañ fi. ay ay maamam jaar nañ fi voilà. dara. suur ngeen dara. dara ñu bëri pare na fépp ah pare na fépp. tey lu ñu mën a xaar deux combat bi. lu leen ñaan hmm. ah pare na fépp. pare na waaw non non non loo sa ah, sa daan rek incha allah barke alxuraan ñoo ko fa daal incha allah kat kàttanu yàlla billaahi ndam rek lañ yaakaar waaw am nañ yaakaar bu baax a baax gis nañ waaw incha allah non mbër xam nañ ñun tamit mbër la yor tamit te wóolu nañ ko daal incha allah yàlla na yàlla ànd ak rek incha nañ combat bi bokk a métti ci carrière bi non déedéet ama ah, yim yim romb moo gën a métti yi barke alxuraan non déedéet bii nii nii nii barke alxuraan mbër la nag mbër la duñ ko xeeb mais bii nii nii am na yu ko gën a métti quoi te weesu nañ ko kon bii nii nii wax dëgg yàlla duñ ñëw mën a jaaxal daal incha allah waaw ci kàttan non dina am lim def ci ñun ci benn côté mais dara sëñ Fall yàlla baax na daal yàlla yàlla na yàlla dolli sutura incha allah yàlla na yàlla ànd ak ñun incha allah waaw jaajëf. waaw gis sant rek. mystique la wala. dara moom ñun dañoo dara bay mystique. Ah. koy bu rek Gris Bordeaux ngay mystique lan moo si jar. jarul mystique yàlla xam ne jarul ko. Modou Modou Ama laa ñu commencé Ndakaaru Ndiaye Sénégal ba France. Ah. arrêt bu ñu dem bëree barke alxuraan kam du am dara. Ah. ama ko mën si lépp. moo ko mën si lépp waxuma si doole de lépp laa la wax ama moo ko si mën. lépp ci Gris Bordeaux. barke alxuraanu karim ku lu koy mbër ku takk ngem ama bale moo la mën. dafa am nekk si moom mu nekk mbër kaamil. man lépp. sama àdduna leen doog moo métti ama Modou Lo kese mu métti. ama daa mën Modou Lo téeméeri junni yoon. billaahi wallaahi wa taala ama moo mën junniy Modou Lo. bale moo mën junniy Modou Lo barke alxuraanu karim ni mu demee rek waa yàlla baax na barke alxuraan waxuma la waa Pikine man sën laa wax man daf maa métti. Ama Baldé Modou Lo waru ko daan si dara ama daa mën Modou Lo junni yoon waaye nag sarax day am ah, boo waree génnee sarax da nga koy génne ala kulaar ah? Modou na ko lekk lu ma mee sama àdduna mooy du amati. mais mais Ama digganteem ak xale yi. mu jóge ci defet tey face to face kese la ñu gis xale yëpp génn topp ci ginnaaw fas yéene ko moom. mbooloo du gaal du bayre mm-hmm. bayre amul. Sénégal kenn moomu doomu aadama kenn moomu leen. loo ko wan rek noonu la lay jàppee. Mm-hmm. tey nit ki boo xoolee mbéy jaay ko taalibe mu fekk see saa boo wootee mun ngaa loué seize mun ngaa loué baas waaye doomu aadama kenn du ko loué. ama dañ koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla suñu borom wallu yàlla na yàlla ànd ak moom xale la. waaye yàlla la 30 na nekk bilaahi pël bi ngay wax de pël bi uh-huh. le fils de Falaye Balde si kàttanu yàlla ak mbaaxam bu soobee yàlla miy maye.